shukran lakum shukran lakum sunu mag ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen. dalal jàmm fii ci seen seen Rafaahi TV seen émission bi ngeen baaxoo am na sawtul xaq xanaa di jéggalooti rek tardement yu metti yi xam ne moom lañuy def te lépp nekk ci suñu ci ci ñun nag waaye yittee jamono rek moo ko waral ñu ci jéggal bu baax a baax mbokk yi dellu siwti nañ ak yéen fas yéene waxtaan ak leeralante ak laabiirante ci lu ñu bokk te mu yitteem ñun ñëpp mooy réew mi ak njaboot gi te mu mel ni ndaw ñee aaye ndaw ñee aaye ndax senegaal dañu dëkk boo xam ne dëkku ndaw la dëkku ndaw la maanaam ñi ëpp ci askan wi ay tut tànk lañ ñaar fukk jàpp fanweer ba ñeent fukk dong ñoo nekk daanaka ci réew mi ndaw yooyu am ci benn ndaw bu ràññiku lool bokk ci ñun su ma bokk ci ñun mooy ci ñoñ daara la bokk bokk ci réew mi bokk ci ñun dëkk ci réew mi di doomu réew mi waaye di doomu daara saa borom yàlla moom ko ci ay xibaar yi ñu jot saa borom yàlla moom ko ci anam bu méttee métti te yaram mu nekk loo xam ne daanaka moom vitrine la vitre la boo xam ne vitrine pour mën a leeral ndawu senegal jafe-jafe bi nga xam ne moom lay am pour dund ci réewam muy suñu mbokkum daara moomu di Papito Kara ñu yaakaar naa ñu xam ko ci Pape Ibrahima Gueye bu ma juumul dëkk fii Touba waaye ñépp ràññee ko ci yaram ak ci tegginam nekk ndaw nekk ndaw ci Sénégal buñ nee ndaw ngëm-ngëm biñ ci amee mooy lu la neex wax lu la neex def boo waxee ñu ne diw ndaw la waaye Papito Kara moom nekk ndaw nekk ci média ñépp xam ko mu siiw lool te kenn mësta dégg mu saaga kenn mësta dégg mu wax wax ju ñaaw jëme ci kenn bañ yàlla sunu boroom di ko moomee ñu ñaan yàlla sunu borom yërëm ko te jéggal ko te xaare ko aljanna mbokk yi damay wax ne mbooleem ku faatu te di jullit warees na koo ñaanal waaye ko faatoo ndaw rawatina man dama ragal faatu ndaw ndax ndaw dundam lépp ay risque la dundam lépp ay pakk pakk la dundam li ci ëpp ay njuute la moom daw parce que li ko wër ci environnement di ko fëkk dafa bari te mu muccandoo ci yépp dafay jafe moo tax ñépp lañu war a ñaanal waaye ndaw lu faatu mbokk yi kooku ku ko fàtte doo nit ndaw lu faatu kooku waxtu wu ne des koo war di ñaanal di ko fàttaliku rawatina nag mu ndaw loo xam ne amoon nañ ci moom yaakaar ndaw loo xamee ni bët yépp daa tegu woon ci moom di yaakaar ni dina am avenir bu bu bu bu sedd xol sunu borom jaarale ko fi ko jaarale waaye nag mu am yoxo yoo xam ni dogalub yàlla bi seeni yoxo jugu ca te insha allahu taala moom lañ fa yéene waxtaane ak fi Sénégal toll mbokk yi Sénégal di réew moo xam ne boo ko dee natt comme ni ma ko waxee woon sànq liggéey réew moo xam ne la ca ëpp ay ndaw lañ yor seeni doole yor seeni xel waaye yàlla sunu borom yaral leen boppam ñu ne mëmm yënguwuñu su ma ne yàlla sunu boppam yaral yàlla yaral leen boppam mooy dangay xool askan wi ñu wër ñun Sénégal askan yi nga xame ni ñoo nekk ca gannaaw géej ga mbokk yi askan yooyu lañuy def est-ce que ñun suñu askan ñu ngi koy def mbokk yi gis nga ñun askan yi ñu wër ak askan ya nekk gannaaw géej ga seen nitu ordinaire la ñuy fawan la ñuy fawantoo ci ñun la ñuy def xaw ma ba ngeen maam nit askan biir Afrique ak askan ya nekk ca gannaaw géej ga di ay xonqe nopp seeni nitu ordinaire civil yi nga xamante ne tey dañoo normal civil yi normal la ñuy fawee di ko def ci ay kirim ñun suñuy bandi loolu la lañuy def ñu tuddee leen bandi moo tax ma ne leen ñun askan wu yarute dal la ñu am te bu ñu yarul woon askan wu yarute dal wallahi da nga gis fii bëccëgu ndar kàmm ñu jàpp kilifa toroxal ko toroxal bu kenn mësta gis ngir kilifa yi seen jëmmi bopp ñoo njëkk a doy waar ñoo njëkk a xamadi ñoo njëkk di jërgati yoon te askan wi dañ ci ànd ak benn dal dañ ci ànd ak benn yar dañ ci ànd ak yëpp benn maanaam mana a ko mettit wi di ko muucu ndànk di ko dund di souffrir silencieusement looloo tax ma ne askan la woo xam ne ndaw la waaye ndaw ñu yàlla sunu borom yar te dalal leen waaye nag ñi leen jiite dëkk ci di leen toroxal ñi leen jiite li ñuy nekk nekk ndaw li ñuy dal dal dal askan woo xam ne ndaw lañ te dal waaye sunu boroom da leen a nattu ñi leen jiite dëkk ci di leen toroxal dëkk ci di leen noote dëkk ci di leen nappaaje di muucu seen deret di lekk seen alal ba pare di leen fontoo jàppee leen comme ay dof ndal maa ngi tooñ dof yi waaye jàppee leen objet jàppee leen musuwaar boo xam ne dangay fomp ba neex la nga sànni lii la leen seen njiit jàppee te gis nga mettit woowu nga xam ne ñu jiite réew mi ñu koy teg askanu Sénégal di ko teg ndawi senegal boo bëggee xam bu baax a baax a baax nattuwaay bi ak dëgg dëgg dëgg dayoog mettiwaay bi fi mu fi mu toll ak fi mu yam xoolal jëmm ji fi jóge bërki démboo njaay di papito kara mbokk yi démboo bu baax a baax a baax dama ni askanu Sénégal da di askan woo xam ne askanu ndaw la yor seeni doole ak seeni xel mënoon a di baj baji ak rëg-rëg yi waaye yàlla sunu borom yar leen bañ ni nemmu ci boo xoolee askan yi leen wër ak yi nekk ci gannaaw géej gi kilifa yi nga xam ni ñoo leen jiite dëkk ci di leen noot ak di leen naqaral ak di leen nappaaje di lekk seen alal te ba pare di leen fontoo ma ne nag naqar boobu ñu jiite ñu jiite réew mi di teg askan wi di ko teg ndaw ñi boo bëggee xam dayo bi fi mu toll boo ko bëggee natt boo ko bëggee xam dëgg dëgg dëgg xoolal jëmm ji fi jóge bërki dem mooy Papito Kara mooy vitre bi lay wan ñi ñu jiite naqar wi ñuy teg askanu senegal rawatina ndaw ñi ci alam gu jéggi dayo ci anam gu flagrant maanaam dafa fés te na ci dara xoolal da xool Papito Kara ndaw loo xam ni jàng na ndaw loo xam ni yaru na ndaw loo xam ni am na bëgg-bëgg ak gis-gis ak inspiration xalaat te kenn du ko ko weddil ndaw loo xam ni mécc mi maanaam daaral a jaar daara la jaar di góorgóorlu di góor ba a ba mën a def mécc moo xam ne ña koy def ci ay école lañuy jaar ci anam gu gudd gudd gudd doog koo mën yàlla sunu borom may ko ko mu di ko def ci anam goo xam ne anam gu rafet la te jekk ñu jékki-jékki-jékki ci problème mu politique ñàkk ànd kii laa àndal kii kii la àndal kii neexuma ki ya ma neex te man ki ma neex ngay bëgg fa la force ñu jël ko ci tëj ko kaso torturé ko naqaral ko tëj ko kaso ab diir lu ëpp juróomi weer ci ndaw loo xam ne day doog takk soxna nga commencé yàq àddinaam yàq liggéeyam buntu xatal ko ba xatatul réewam buntu xatal ko ba xajatul réewam bëggatut dund ci réewam nga gàddaay ko mbokk yi na xam ngeen ni gàddaay ñaar la ki ñu jël yat dóor ko jiital ne ko génnal kooku dañ ko gàddaay waaye ki nga xamee ne dañ koo xatal mentalement physiquement kooku yëpp dañ ko gàddaayloo ba bakkanam des ci àll bi damay wax ni gis nga lii lii yàlla xam na ni bu fekkoon ay njiit yu am jom njiit yu am ay responsabilité seen bopp njiit yu am xol la jiite ñu bari ci ñoom démissionné nañ seeni poste waaye ndeysaan ma al asaf yàlla dañoo nattoo njiit ñoo xam ne matuñu ci seen jëmme bopp waaye matuñu ci seen xel ak ci seen xol te xol bu paanee lépp paan njiit la ñoo xam ni seen bopp rekk leen ñor amul leneen na askanu Sénégal gépp di faatu déedéet bu fekkee seen politique bi bëgg a mane mi ngi dox ñi ngi ngooru ñi ngi dégg monsieur ministre ay monsieur président de la république ay nangam ak nangam ay DG koy dee faale wuñ la seen yoon nekku ci na seen doom dund seen njaboot dund seeni xarit dund seen i àndandoo yi leen di xalamal dund waaye ñi ci des seen yoon newu ci njiit yooyu la am yal nañu yàlla sunu boroom tàqaleeg ñoom te atteel ñu leen atte bu maandoo maandoo maanoo maandoo suñu digganteeg ñoom man de damay faral di wax ne. yowmal qiyaam man naa jéggal ku ne ci àddina bam des njiit lu ma jiite woon fii ci senegal dal di jàddal yoon kooku duma ko jéggal mukk man damay faral di wax ne bu fekkoon man dong nga des yowmal qiyaam ñu ne ma boo jéggalee président bi wala ministre bi ci àq jam la yoreel mu dugg àjjana damay lànk ndax coono yi ñu teg ak naqar yi ñu teg yàlla xam na ni mérité wuñ ko te teguñu leen ko ñun yow bu fekkee ñun suñu lekkuñu suñuy nelaw doyut fajuwoon naanu ba maan naanuñu ba màndi lekkuñu ba suur amuñu jàmm ànd ak loolu lépp teewul ñooy ci suñu poos di leen jox ngeen di lekk ba suur ba desal seen njaboot lekk ba suur ba desal ñu jox leen ngeen naan ba màndi seen njaboot naan ba màndi ngeen di tëdd ci kilim di yor oto yoo xam ne ni mën naa jënd suñu fukki kër ànd ak loolu lépp ngeen wëlbatiku di luumal alalu askan wi di leen tegi naqar di leen toroxal di leen noote ah man njaay umma xol boobu jéggale ko man ëllëg yowmal qiyaam te gis nga lii ma wax nii ci papito kara yàlla na ko yàlla sunu borom yërëm ci ndaw loo xam ne dañ koo buntu xatal ci réewam may ñu ko benn sens pour mu développer li nekk ci moom ci ay xam-xam ba mën a dund ci réewam tekkee ci réewam damay wax ni moo dal junni junni junni ndawi Sénégal yi yi gàddaay moo dal junni junni ndawi senegal yi faatu te kenn xamu leen lu leen rey moo dal junni junni ndawi Sénégal yi taxawaay taxawaalu ci mbedd mi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñu xëy te wallahi al azim du seen du seenu ñàkk jom waaye njiit yu ñàkk jom njiit yoo xamante ni day fonk ñu seeni i askan njiit yoo xamee ni bëggu ci seen askan bëgguñu seen réew seen bokk bopp rek lañ bëgg moo ñu yóbbee lii moo tax ci loolu nag may wax askan wi askanu Sénégal ne leen nañu xoolante ci bët te waxante dëgg mbokk yi ndax solution bi mooy ñu takk suñuy bagage génn réew mi loolu lañu ñu laaj fi mu ne ndax solution bi mooy ñu takk suñuy bagaas génn réew mi est-ce que ngeen yaakaar ne loolu dana faj dara nañu waxtaan ci xel nañu waxtaan ci xel nañu waxtaan ci xel ak deret ju ñu yàlla boole ak bokk gi ndax solution bi mooy dama sonn ci réew mi amatuma ci yaakaar naa takk samay bagaas génn réew mi xoolal 2023 bi man damay wax ni mille 2023 bi mooy gàcce gi gën a rëy ci gàcce gi senegal ma sa am ay junni junni ndaw jékki-jékki takkaloo seeni bagaas fàq génn réew mi ay junni junni ci ñoom des ci ndox mi ñiy des ci àll bi ci ay ndaw yoo xam ne mënoon nañoo jariñ seen réew bàyyi seen ginnaaw njaboot yaay bàyyi soxna doom xarit mag rakk ñu yaakaaroon ci ñoom ñu xëy suba dem des ci ndox mi est-ce que loolu mooy solution bi la mbokk yi ni mu toog suñu réew jaayante ko mu jaral ñu nañu toog suñu réew jaayante ko mu jaral ñu mbokk yi gis nga fulla dëgg mooy kii yàq sa réew fulla ji mu am ci mbonam ba nar ko yàq amal fulla ju tol noonu toog ci sa réew ba defar ko loolu mooy fulla ndax doyaluñ ci ndaw yuy faatu nii comme weñ ci biir géej gi est-ce que doyaluñ ci ñun askanu Sénégal mbokk yi bu doyut ngeen wax ma junni junni doomi aadama ndaw yi faatu ay jigéen ak xale ci àll bi ci géej gi ndax doyul mbokk yi doy na nañu toog nañu toog suñu réew ñuy defar ko yàlla du wàcc mukk di ñu ko defaral du yabali malaaka mu di ko defaral ay jinne bi ñu fàqee ci àll ba di ñu ko defaral amul benn réew boo xamee ne dana jóge ci àll ba ñëw fii ci suñu réewu Sénégal ne dañ koy defaral dama wax leen ndànk nag mooy yéen a ngi dem di génn réew mi waaye ñeneen a ngi ñëw ci biir réew mi di leen wutu te dëkkuñ ci réew mi di occuper li ngeen bàyyi yéen mbokk yi nañu yeewu tuuti te xalaat ñun suñuy ndaw ñi ngi takk seeni bagaas di génn réew mi di dem. ne dañoo sonn ñeneen jóge ci àll ba te dëkkuñ ci réew mi ñëw occupé place yi ñu waroon a occupé ñun ndawi réew mi moom li ñu waroon a moom di liggéey li ñu waroon a liggéey mais mbokk yi ana xel ana xalaat nañu toog nañu toog ci réew mi liggéey ko bu fekkee nga xam ne ñàkk liggéey moo la tax a gàddaay xoolal ki la ko teg xoolal ki la ko teg du dara lu dul dérision yi bon. njiit yoo xamee ni seen bopp moom moo leen ñor du leneen mais fulla ji ñu am ñoom ñi ñu jiite bay yàq réew mi fulla ji ñu am bay sàcc alalu réew mi fulla ji ñu am ba dañu toroxal ñun ndawi réew mi fulla ji ñu am ba dañu xañ suñu liberté ñun ñu dëkk ci réew mi te gënu ñu fee dëkk te ñun ñoo leen di dundal mais ngir yàlla mbokk yi nañu am fulla ju tol noonu toog ci réew mi résisté ak ñoom ne leen ñun ñoo moom réew mi ñoo ko bokk ak yéen ëppalewu leen ñu ci fexe ba defar suñu réew ci jàmm ak salaam te mën nañ ko mbokk yi mën nañ ko nañ ko def kon nañu toog ñu wajhillah nañu toog xoolal papito kara nii nga xam ne moom lañu ñu ñàkk ak lañu ñu ñàkkaale lépp ci ak demam wallahi moom moo siiw ñu xam ko ñuy wax ci moom waaye ay junni junni junni papitokora des nañ ci géej gi tal xoolal la ñu waroon a mën a a jariñ Sénégal la waroon a mën a jariñ Sénégal ci liggéey ci yar ci dal ci développement lépp ànd naax saay te lépp nag kenn dong mooy responsable bi mooy njiit yu jiite te dëkk ci di ñu fen dëkk ci di ñu nax dëkk ci di yël suñu alal dëkk ci duñu ñaawal ak a cokkaas ak a provoqué ñun ñoom ñooy responsable ma dellu waxaat ko mbokk yi dañu toog dem gi du solution nañu toog ci réew mi réew ya di dem ay ndaw am fulla defar ko ba mu mel na tax ngeen bëgg faa dem kon ñun tamit suñu réew mii ay ndaw nekk fi te ëpp fi nañu am fulla ju toll ne toog fii defar ko ba nit ñi di ko xamam di fi ñëw mbokk yi dama lay laaj yow bu fekkee da ngaa maar fii ne amoo liggéey dëkk bi dafa yàqu da ngaa ñàkk espoir ba daw liggéey yi feneen yàggam yàggam danga nga delsi da yaakaar ni boo delsee da ngay fekk gaa yi defar la ko defaral la ko yow yaa ngi nax sa bopp gëmal ni yow yaa ko war a defar boo demee boo ñëwee da nga koy fekkaat laajal suñu maam ak suñuy baayaati baayaati baay ya tukki woon est ce que biñ ñëwee gis nañ fi benn changement ci wàllu éducation ñi wàllu njàng mi wala wàllu économie wala wàllu euh, faj gi wala wàllu géneen boo xamee ni Sénégalais yëpp la ñor déedéet gisuñu ko kon mbokk yi nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax ñu ngi jégalu bu baax di ñaan dellu di ñaanal suñu mbokk Papito Kara yàlla na ko yàlla suñu borom yërëm te jéggal ko. te jéggal képp koo xamee ni faatu nga ci yoon wi te jom ak fulla ak wuti loo dundalee sa njaboot doo nga taxul nga dem di ñaanal ñëpp di ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla sunu borom def jàmm képp ku fi nar a indi ay képp koo xamee na nga fi indi ak laxasoo yàlla na la yàlla sunu borom lëmas ba nga jekk mu dugal na ci pax yàlla na la yàlla tëral foo xam ne dootoo mën a jóg te ñoom xam nañ seen bopp nañu yem te bàyyi réew mi fooyee am réew kenn du ko fooyee aw askan kenn du leen fowee 17 millions ci aw askan képp ku leen di fowee sa bopp bi xel nekku ci wa axiru daawana an alhamdulilah rabbil alamin wa seen njumte jëf kuy jam di jam lekk lekk mu far sax lu pee